asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalib yi ci ndigalul ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne Touba ci kaw suuf ñuy ñaan suñu boroom mu yàggal ko fi te dëgëral ko kàttanal ko sàmm ko ba yéene yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñ borom mooy ko kàtt ko wér lépp mottali ko mhm. kon ci ndigalam ak turam lañ fii tey ndax xam nga ne yoon lépp luñ ciy def rek moo ci joxe ndigal ndax mooy borom liggéey bi mhm. kon ñi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi ñëw tey ci turu nguur gi ngir tàmbali liggéey bii nga xam ne yàgg nañ koo bëgg yàgg koo sàkku ba suñ borom di ko door a dogal ñu war koo tàmbali tey jii muy loo xam ne itam Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy rafet bu baax a baax ndax liggéey bu rëy la bu am solo boo xam ne bokk na ci lii gën a yombal dem gi ak dikk bi dikk yi ci biir dëkk bi dana yombal itam xew-xew yi fi am rawatina màggal Tuubaa gi nit ñi seenu dem ak seenu dikk ndax xam ngeen ne mbeddum 30 bi Cheikh Mahamadul Fadil bokk na ci natt yi mu njëkkoon a def mu wër dëkk bi. Mm-hmm. bi mu ko joxe ndigal sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mu di ko taxawu. kon bokk na ci mbedd yi nga xam ne mooy jiitu ci yi sës ci jumaa ji yoo xam ne wër na dëkk bi kon mbedd la moo xam ne képp ku dëkk Touba xam nga ko ndax ñëpp ci dëkk bi buñ bëggee dem fu gën a yomb ci ñoom fa lañuy jaar te suuf la ba nag ni kon nag bu yàlla defee tey ñu war koo tàmbali sëriñ bi wax na loolu mu ngi koy rafetlu bu baax euh, di ci gërëm nag ki nga xam ne yàlla def na ci loxoom la sottee muy président de la république Macky Sall mu bokkee ci projet yi nga xam ne euh, digg digg woon na ko wax ne bu faloo bokk na ci yi mu njëkk a tàmbali mm-hmm. kon lii firndale ci loolu kon sëriñ bi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di ñaan itam liggéey bi nii mu ko tàmbalee ak yeneen liggéey yi nga xam ne mi ngi koy bëgg a def ci réew mi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 Euh, tëli dafa àggagut tam loolu bokk na ci yi nga xam ne mooy li jiitu ci ñu war a defaat ci dëkk bi ndax bii biir dëkk bi ko moom yenn tëli yi agsiwaat mooy jëm ci quartier yu yi kon loolu itam sëriñ bi yëpp mu sotti ndax moom dara bàyyiwu ko fi lu may njariñu nit ñi ndax xam na nit ñi fi dëkk ñoo koy jariñoo waaye nag comme moo fi sëriñ Touba bu soobee ñi dëkk ci dëkk bi kenn du ci tumuraanke bu soobee ñëpp du nekk ci ay coono kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp